alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabus rahmatin alamin sayidina mahamadul amin wa ala alihi wa sahbi man taala salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi ñu ngi leen di nuyu bokk jullit yi bokk taalibe yi di ci bisu guddi xam ne guddi gu tedd muy fekkitelu chahru safar di weer woo xam ne ni ma ko waxee léegi rek weeru yiw la weeru jàmm la ci ñun ba sunu mbokk moom moo waxoon keroog rek Cheikh Ahmadou Sahou Basir sunu weeru indépendance la boo xam ne bii war nañ fu ñu toll di ko fàttaliku di ci xam li doon ndax mooy weer wi nga xam ne day bu fekkee ne. li nuy wax am na kon ñun ci lañ xam ne ci lañu goree fekkee ne amoon nañ leneen lu wut gor ndax yaakaar na waaye nag gëwuma ko woon waaye nag comme wax nañ ko ba mu siiw ci weer wi kon lañ goree ñun gore na su ma ko waxee mooy li ñu tuddee indépendance euh, mosuma gëm ne euh, mas naa am ku ñu not waaye li may comme wax nañ ko ba mu siiw rek weer wi ci lañu libéré woo ci bis bii nga xam ne mi ngi jublu si di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wi incha allah ren mu tombeek weeru tubaab wi juróom-ñeenti fan juróom-benn fan yaakaar naa ci talaata kon bis la boo xam ne bis bu jar fonk la bis mooy sunu bis am na kilifa ko waxoon na ne waa penku bi dañoo am kiiraay ba tax at ma jooju tase fa mu bëggoon moom fii mel noonee yaakaar naa mel na ko sant nañ si bu baax a baax yàlla na ko yàlla fayal ñu gis si nag ne bis la boo xam ne daana am daan mel na muy mel waaye ren jii nag dañ ci am loo xam ne dafa tombeek moom ñun ñu waa Moukhaddamatoul Khidma ci njiital sëñ Afia Bousso mu jëlee ndigal ci kilifa gu mag gi Cheikh Ahmadou Mountakha mu xamal nañu ne ne ko Cheikh Ahmadou Bachir waxee woon dañëpp dégg ko sàmm la fi nekkee rek sàmm lu fi mag ñi defoon sëñ bi digle woon ko mu moo koo sàmm rek fi nekk moo tax na ko mag ñi daan defe sëñ bi diglee ko noona Cheikh Moustapha Karim taxawee ko ba Cheikh Amadou Fadel ñëw taxawee ko def ci lam ci def woote ci bis ba ci senegal gi Touba gi te euh, Cheikh Abdoul Ahad si Abdul Xaadir Seex Chouaib Seex Saalih mi nga xam ne moo fa mujj ñëpp ak seeni bokk taxaw woon ko daan ko def noonee ba Seex Abdul Amin Sëriñ Seex Ba Balla ba ci moom mi tey mu ne kon da koy sàmm rek nam ko sàmme woon bëgg noonee na meloon nag luñ ci manoon ci benn ci def fukk ak juróom wala lu ko ëpp taxawee ko noona njàngum alxuraan ma xasida ya ak lu ci waay man ndigal yooyu nag la teg ci loxol sëñ Afee bu su moomee mu indi ko ci sunu bokk yi ñëwoon tey seet ñuy bokk ci ñoom te ñi ñoo xam ne mbooloo moo xam ne maa ko waxtu su rek daal ndey euh, nun murit yëpp ñoo war a taxaw ànd ak ñoom ci lii ndax du ñoo xam ne dañaan leen kat ñëw leen ñu fay leen ngeen def nangam nangam déedéet dañoo xam ne kat seeni waajur ñoo ci nekkoon sëriñ bi féetale woon leen ko muy axalu bu soobe ak ñuy àndal ñu nekk ca di liggéey di liggéey ba sans borom wàcc leen liggéey boobee ñoom ñu ne wuutu leen ci loola du pël pay guñ ci am guddu gu fay sëñ Tuubaa doon sëkk yaa leen si doo fay ñu nekk ci di jëfal sëñ Tuubaa di defal lépp coono yooyu ñu jàngàllankoon nag nun murid ñoo leen ko war a jàppale tegal ko ca mooy waa Muxaddamatul Xidma gi nga xam ne ñoo fi ñëwante di waxtaan Euh, euh, bis bi nag dafa ñëw ci jamono joo xam ne jamono ju doy waar la waaye jamono sant yàlla rekk la ndax yàlla kat du juum te du def lu defuwut euh, xool la ni si beneen illaama kataab loolu naa rek la waxoon bépp loo gis ko daa am lu mu jublu am lu mu fanqal li ñu tuddee mbas di ko tudd nangam yooyu yëpp am na waaye nañ xam ne rek birum sama borom rek la ne ko Cheikh Moussa waxoon waaye tamit dañoo war a xam ne nun kat ñu ngi tuddoo ay murit te moom lañu euh, damay jéggulu ci tas tos bi ma def ndax kat du jaadu waaye nun ñuy murit lañu ñu war mooy jëfe li sëñ bi waxoon rek ca sifaat yi nga xam ne melo yi nga xam ne am murit moo la mel yëpp baax na ba ca waaye dafa am mu ci jël boo xam ne imtisaal awamir topp ay ndigal ndigal yooyu nag bu ñu xoolee sunu kilifa yi fi jaar yëpp Euh, la leen may lañu am topp ndigal rek la bàyyi ay tere maa ngi yëgulu topp ndigal te duñ leen tere euh, topp ay ndigal te duñ leen tere loolu lañ war a raytu ñoom bu ñu dikkee ci euh, bis bi tey Cheikh Mountakha def na ko daaw def ko daaw jékk Cheikh Awa Balla suñu Cheikh Moutar def na ko yu jiitu ba ci Cheikh Mor Fadal ba ci Cheikh Cheikh Mor Boussor Karim nañ ko taxee woon lañ ko taxee woon ji waaye ren dafa ñu dikkee noo xam ne nii daf ci am lu ci xaw a laal muy li ngeen dégg ci réew mi ci àdduna bépp bokk ca yàlla nag suturaal nañu yàlla suturaal nañu ndax nañ ko jàppe woon ba uh, waa bitti wax ne kat Afrique bu ñëwee nangam ak nangam sampar mu suturaal nañ ci loola ba ñëwee yàlla suturaal nañ ci ba amaguñ ci lu mel nii la ñuy am waaye lu ci mën a nekk rek Euh, wiqaaya moo gën ilaaj maanaam fagaru moo gën faju te gëm naa ne gëm naa ne sëriñ rek la ñuy liggéeyal kon nag loolu du ci am waaye comme wax nañu ko te sëñ bi joxe nañu digal ñun buñ xam buñ xool nañ gëm rek xool sëñ bi ñu defee ko te sëriñ Mountakha mi fi nekk day bu ñu reyee ci moom dama ko wax waxee woon ci jëlbeen nga ko demut naa dem ba muy tàmbuli lam njëkk a def jël alalam def ca jox nañu blession nañu kat. lii la Sëñ Tuubaa bëgg ndax Sëñ Tuubaa kat boo xoolee Cheikh Saliou Mbacké mii tey bi fii eh, Sonacos defee la mu def ala la jël joxe ca kon ay royteelu Sëñ Tuubaa doon Sëñ Tuubaa daa am na muy doxe tàmbali boobu mu tàmbali nag wan ña ko jiite ne leen kat lii mooy sama tàmbali ba noppi wax mu am xaddamati xidma yi ni leen ndigal lu ñu sama borom jox kat mënuñ koo bañ a def ndax ndigal la waaye na ngeen xool nu ñu ko defee ba tax na jumaa ji ci Tuubaa mës a tëj dañoo seen di julli di def na ko yàlla diglee di am mm, euh, mbooloo mi nga xam ne ñoo man jumaa nañ ko def waaye nag teg ko ca waa axlu ñi nga xam ne ñoo jiite waa docteur nañ ko diglee woon ñu nekk ci loolee ba am na ci ndam tey am na ndam li mooy kenn déggagul ku dégg ñu ne ab nangam am na bu jóge ci may Tuubaa te loolu seen farlu la ak topp ndigal mën na ko teg bu fekkoon ne ba na ko sëñ bi waxee ndigal loolee jëfandikoo na ko sëñ bi waxee woon day mën na am jox-jox waaye ba mu tàmbalee ba tey ñi ngi julli ajjuma ñi ngi julli waxtu juróom yépp te topp ndigal rek moo leen may ba amuñu ci benn kaa kaa yooyu ñuy wax nag lañ bëgg ñu jëfe ko ñun ñu ngi xam ne taalibe yi nga xam ne tey dañoo dégg Sëriñ Tuuba ànd ak moom da ko jox suñ lépp mu yor ñu ko lépp ñu war a ñu màggal si màggal si nag ni ñu koy waxee rek mooy dangaa jëm ci la nga mënta am ci la nga mënta am ka ko yoral nga jëm ci moom kooku nag boo ci dee war nga bàyyi sa xel da war a mel nam bëgge nam bëgge mooy booy ñëw na nga yiw la diine sant na nga ca bel boo dee góor boo dee jigéen mel ko ba noppi nag ndax ndab lu tax kenn mënu caa def lekk dañ koy raxas ba noppi waaye danga nga raxas sa bopp booy ñëw nga mel na nga war a mel ci diine loo boo ñëwee ba sëñ bi sottee dara nga mën caa am comme nag dafa ñëw taseeg teeg euh, lii ñu wax mooy luñ ko mën tudd rek mbas ak mën a demee docteur yi nga xam ne ñoo xam loolu ñoo xam loolu na muy doxe mu ne kat nañuy def nangam ak nangam kon nangam jooju yu ñu wax mooy takk masque bi kon ni ma ko defee nii ma may tàmbali am naa ko sama kër am naa ko fu nekk fu may dem am ko ngir njëfe ndigal si mu taax waxoon ñu kat ay taalibe ka lañu bu tubaab bi waxoon dafay nangam te sëñ bi ne déedéet dañu naan déedéet waaye comme sëñ bi moo ñu suñu kilifa di Cheikh moom Cheikh euh, Mountakha Mbacké moo suñu kilifa. digal ñu di doon suñ Tuubaa suñ kanam nañu nañ def lii buñ xoolati la koy wax buñ xool la koy wax ñu naan am naam amut ak deful loolu ñoruñu na am du am yooyu yëpp suñu suñ problème nekku ci suñ problème suñu uh, jëm ci jub daal mooy nañ xool lañ Seex Muntaxa wax ndax leer na leen bu dee uh, ni ko waxee rek ñu xamee ko ko nii bëgg Sëñ Tuubaa ñu ngi ko waxtaanee léegi rek bëgg Sëñ Tuubaa ak doyla ko Sëñ Tuubaa doyal ko léppam waaye bëgg wan nit ñi ne leen kat euh, topp ulul am rek yàlla waxoon na ko ci alxuraan ñëpp xam nañ ko moo tax muy doxal noonee di jël masque di ko takk ci jumaa jëpp di ko gis ngir bëgg rek ñu ñu roy wala bu ñu topp ci moom xam ne ndigal li mooy kuy màggal si kuy màggal si na bàyyi xel yooyu yi bokk taale bi nga xam tamit daanañ dox ci mbedd yi dafa ay lekk ak yooyu man de maa leen di conseil leen ku ci mën a wut ay masque di ko jox ba ba oto yi nga xam ne seen doole àggul ci am ko ñu jox leen ko donte yi lekkee da ci àndaale ñu boole ko ca lii ñuy euh, maanaam euh, liquide bii ñuy laal ci loxo kooku ci mën a am tamit ci yi nga xam ne seen i euh, man-man àgg na fenn fi buñ ci mën a jënd toog ci àll bi ak ci yoon wi di ko jox nit ñi ñu indaale ba buñ accès na ko sëñ bëgg ñu defe ko noonee ba buñ ci jógee ñu am ci ndam loo xam ne daanañ ko ci am te dinañ ko ci am sax gëm naa ko man ndax kenn fi looloo waaye nañ def ndigal li ba noppi bi ñu fa ndigal lu ñu fekk na ñu xam ne loolu suñu bëggoon xam ne nag ne damay wax toujours ne nag lii naa ko wax mooy lan danaa màggal ci doon màggal si moom loolu si yoonu ci waaye màggal gi ak gàmmu ak tëbaski wala boog màggal gi ak leneen leen bokkut damay wax ne ko benn kii ne ma lu tax màggal Sëriñ ngeen fomm ko ma ne waaw ndigal lu mu joxoon la ngi sant yàlla ki yàlla boole Sëriñ Tuubaa mu wax Sëriñ Moodu ne ko sant leen ma yàlla ci bis boobu yi sant yàlla nag ku ne mën a ko def mën a ko moo tax ba sëñ bi joxe ndigal li ma ko waxoon ndigal la ñuy euh, déglu ñun sëriñ Abo Baraka dem ci sëriñ ba sëriñ bi ne ko ndigal li mooy na ko defee ñu defee ko noonee nañ ko bëggee ba am nañ ci ndam jàpp naa ne màggal nañ ba noppi te leer amut gàmmu tamit dañoo gis ne kat sunum moo ñëwoon ci jamono jooju ñu koy fàttali ko di ko sant yàlla mi jox yonent boobu yi waaye màggal sacrifice la bi dafa jëloon bakkanam sacrifice ko ngir ñun kon boobu ñu gën a gore nañ xam nañ màggal si waaye nañ joxe digal yooyu ñu sëñ bi wax buñ ko defee nañ ci am ndam dañ am lañu sëñ bi digal ko am te dañu am gërëmal sëñ bi dañ ko bëggee yàlla na saa borom defal ñëw jàmm delloog jàmm te kenn bañ ci loru te du am bakk lañ yàlla defal ñu tawfeex yéen mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi ñoom ñi xam ne ñoo ak ñëwoon ci ci kër gi maa ngi ñëw maa ngi dellu sant rek leen wax ne kat ñun murid yëpp ñoo war a jàpp li ma ko waxoon ci tàmbali ba xam naa li ngeen daj waaye jar na nit ñi xam ko maa waxoon jàgg ne Tumaay bi ne ngay lu waay ji def lu waay ji def ci liggéeyal sëñ tubaa jumaa ji ci raw ndax xalifa bu fi ñëw li muy def ci jumaa ji kon jumaa ji war na bàyyi xel sëñ bi ne woon na ku ci feeñ da nga feeñ faaw kon nañ feeñ kon maa ngi gën a ñaax sama bokk taalibe yi bu ñu màggal si ak bu màgg jàllee tamit ñu xam ne bokk yii nekk Moukhaddamatoul ma day duñ pay gu ñu di fay du lenn du euh, joxe seen bopp rek ngi sëñ Tuubaa rek nekk ci jumaa joojee di defar sàppe di buub di bale te mën nañu dem ni seexaw bale miy toog këram na dugg di nuroog dara fekk du dara te ñëw ci bokk yam kon maa ngi bokk maa ngi nuyu bokk yëpp di jéem ñaax rek leen waxaat ne rek ne ndigal moom topp ko rek mooy dëgg loolu lii si mu taxaa lii la bokk yi bëgg lii suñ tubaab bëgg mooy lan ñu sagal ko rek sag bi kat nag mooy bu kenn jógee ne kat ne eh, Touba nangam Touba nangam moom suñ Touba moom kenn mënu ko ñaawal waaye Touba nangam bu ci amee rek ci ñun la kon nañ fexe ba bu ñuy dellu ak bu ñu dëkk ñu mel nañ ñu bëgg ñu mel ni suñ bëgg ñu mel ni mooy ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu sargal nga xam ne ñoo wax ne nañ mel nangam buñ ko melee dañ din tuuma yi ñu na teg te du ci am kon ñu jàpp loolu rek ne daal sëñ bi digle na nañ jëfal sëñ bi digle buñ bëggee am ngërëmal sëñ bi yàlla na yàlla defal jàmm mucc ñu jéggal ñu wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu